soo publicité gaawal gaaw nga woote ci numéro bi 77 254 84 39. c'est pour toi. merci. c'est partagé ici. Hmm. Fais <laughs>

fàtte xaju fi. maa ngi naajoo dem ci waañ bi defar café ñëw fekk la nga taal añ. par dimanche ngay bàyyi may togg dimanche mooy sa jour de repos yoo xam nga togg chaque jour dafa métti waxoon naa la day bàyyi may togg par dimanche maa ngi dugg si waañ bi di defar kafe fekk la nga taal añ. nu mu tudd eh, mi ngi tudd umma umma waaw umma la tudd na jaay moom ban ban làkk la bu tur lan la noonu umma umma saraxule wala la wala la ban làkk la voilà na jaay umma nag chrétien la ah chrétien pardon ñu bëggante bu bu baax a baax na nijaay kooku moom xam naa nijaay da ngay dem rek ñaanale ko mu ñëw fii wétali meer da nga ni umma nijaay lu xew umma chrétien la nijaay et eh, arrête yow da ngay bëgg a ñàkk personnalité non da ngay bëgg a ñàkk fayda ah. parce que madame Kabam yi mënul def limuy def han ah. ba paré bëgg a nit ñi jarul nga yërlu man wu mako non la guerre c'est la guerre man tambali na guerre bi de tambali na guerre bi bu yow bo amul ful man ma am ful deng nga li lay wax mhm. jarul nga koy daw uh-huh. bu ko dawati maître waaw bu taxaw fi na la ben nee ko sangoguma tv sangoguma tv sangoguma tv la scène qui vous ressemble et vous rassemble.